Euh, lu baax rek euh, am solo ci bi nga xam ne ci lañ jëm waaye itam mën ngeen joxe seen impression ci euh, liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy nekk def maanaam ku ci nekk yaa xool fa nga xamante ne foofu la la jëfi toll nga daal ci ñëw mën nga aussi def commenter ci tirage au sort bi ma fàttali leen pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan Ousmane Sonko a été tiré en cinquième position Idrissa Seck a été tiré en euh, trentième position Aminata Touré en soixante septième euh, en soixante sixième position Baba euh, Khalifa Sall en soixante quatrième position Boubacar Camara moom la ñuy njëkk a tiré donc moom mooy nekk ki nga xamante moom la njëkk a saytu parrainage am Bassirou Diomaye a été tiré en soixante sixième position. Euh, Aly Ngouille Ndiaye cinquante sixième euh, position entre autres tours yi nga xamante ne ñoom la ñu euh, gën a ràññee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk jamono ji ci see ci ci scène politique bi Déthié Fall itam ah moom il a été tiré en dix-huitième position balaa Déthié dix-septième position plutôt <laughs> balaa Binta dema mere salaamaaleykum salaamaaleykum waaw sama yaay maa ngi delloo ziar bu baax a baax Ah, feete ci feet yi naka feet yi mbaa neex na rek. ah coono rek ak ak ak wopp xanaa. <laughs> ah ëpp naa xalaat la dara dal da lépp wér. Ah, ah sant yàlla rek. <laughs> wane ko ci na lépp wér na la jàmm sonal waaye. <laughs> amiin bare bare bare bare décembre bi. loolu moom wér gu yaram mu ngi ko ñaanal ñëpp ci barke yaa rasulullah. amiin amiin amiin amiin. ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax nag di leen teewlu. merci beaucoup macha allah ah ñu ngi ko doon déglu waaw. Mm-hmm. ah di ñaan ne moom lii ñu jublu rek yàlla na ci suñ borom def ndox mu sedd guy waaw suñu président bi de dégg nañ tur moom Bassirou Diomaye fay de laa déggul woon moom xam naa damaa xaw a raw nag. waaye moom moo nekk ci euh, euh, juróom ñaar fukk ak juróom benn. juróom ñaar fukk ak ah, juróom benn. soixante euh, juróom ñaar fukk ak juróom ah, plutôt. soixante ah, juróom ñaar fukk ak juróom. allo. moom dégg naa ko moom. waaw waaw waaw Bassirou Diomaye. 60 moo ñaar fukk nga wax. ah. moo nekk juróom-ñaar fukk nga wax. waaw euh, juróom fukk ak juróom. 75. Ah, allo. waaw je que réseau bi mooy daw waaw ah, moo tax it ma ci doon jéem a jaar Bassirou Diomaye a été tiré à la sonde kay nekk moom suñ borom tànn na ko ba pare moom yàlla na nekk mooy ki gën ci ñun rek ki nga xam ne moom lañ yàgg tànn. Eh. am ci yaakaar yàlla dañu ko suñ borom dooleel jàppale ko ci barke yaa Rasulullah. d'accord d'accord. allo. waaw yow rek la déglu. allo. waaw ñoom lay dégg de. waaw dafa mel ni moom ligne bi day daw ah régie joxaat ma ko su nekkee ba léegi allo. allo allo. waaw dafa mel ni ah, euh, ah, réseau bi mooy daw mhm. allo. ma ne yow la déglu yow la ñuy déglu. waaw waaw maa leen di ñaanal rek ma yaakaar yi am ci sunu Sénégal gii nga xam ne ñëpp moom yaakaar rek lañ am ci Ousmane Sonko ah ak Bassirou Diomaye Faye yàlla na leen suñu borom defal lu kawe seen jot. d'accord. ah te mu doon suñu président ba Sénégal ñëpp daal ñëpp rek gis ci seen bopp. ci barke mm. yaa Rasulullah ndax tey doon président ëllëg moom suñ borom tànn na ko ba pare moom wax dëgg xanaa wax jee fi nekk kër kër jeeg. <laughs> ak boore ko xol moom moom moom mënuñu koo téye rek waaye moom. kay ah. nekk président ëllëg suñu borom a ko ah. xam. ginnaaw bokk na ci nag alhamdulilah xel gannaa daal te bokk na ci ñu doon première. kon suñ borom dinañu ko tànnalal mu nekk suñu président. ah mais yëf yi 2024 eh, Sénégal jëm kanam ñëpp gis ci seen bopp nag coono yëpp suñ borom. génne ko Sénégal. d'accord mën na ko nag yërmande yàlla nañu ko defal. merci merci beaucoup. merci ñëpp gis ci seen bopp baax na jërëjëf. amiin merci merci beaucoup merci. merci di ko jaajëfal ah di kontaan ci moom fàttali aussi ne ah, tirage au sort bi solo si mooy ah, su ñu demee bay saytu parrainage yi. parrainage yi maanaam parrainage bokk na ci li nga xamante ne euh, képp ku bëgg a nekk candidat da ko war a teewal donc parrainage yi pour vérifier ndax parrainage bi baax naam baaxul ndax am na doublon ndax euh, tur yi nañ ko bindee ndax amul jekk la ca jagadi donc looloo tax ñu def tirage bi ndax ñi nga xamante ne ñoo déposé seen fiche de par euh, seen candidature dafa bëri toll na ci juróom ñeenti fukk ak ñett donc 93 dossiers la ñu daal di déposé moom la ñu retenir te moom la ñu doon tiré au sort donc loolu on peut c'est candidat à la candidature yi nga xamante ne tey jot nañ leen tiré te xam ku ci nekk xam na ban heure la ñuy daal di saytu sa parrainage Boubacar Camara moo ci daal di euh, jiitu comme ni leen ko waxee woon sànq euh, ki nga xam ne moo di Cheikh Adjibou Soumaré topp ci Ousmane Kane topp ci Ousmane Sonko moo nekk en quatrième euh, position pour vérification li nga xamante ne moo di xool ndax parrainage yi baax naam baaxul. donc loolu euh, bokk na ci li nga xamante ne euh, mun nañ ko euh, peut-être daal di retenir ah ku ci mel nii tamit ki nga xamante ne moo di Amadou Ba moom mu ngi ci soixante-huitième position Mame Boye Diao nekk en soixante-neuvième position donc loolu bokk na ci li nga xam ne itam ah da ciy baax aussi ñu gën ko rappeler Bassirou Diomaye moom mu ngi ci soixante-quinzième position ci tirage bi nga xamante ne moom la ñu jot a def niki sànq fa nga xamante ne moo di conseil constitutionnel ngir xam. xam euh, bi fan la toll ndax parrainage yi ñuy candidats yi déposé ndax baax naam am déet donc euh, saytu bi xam naa danañ ko nañ ko daal di euh, door tey wala ëllëg. ah ku ci nekk itam sa mandataire kaa nga fa yónni dana fa teew ki nga xamante ne moo di ama du baax moom Euh, moom mooy mandataire Bassirou Diomaye Faye maître Ciré Clédor Ly ah surprise générale moom lafa osman Ousmane Sonko yebal ngir mu daal di ko fay euh, daal di ko fay teewal waa Benno Bokk Yaakaar Khalifa Sall ñoom ñëpp maanaam tous les candidats ku ci nekk daal ngay envoyé ki nga xamante ne moo di sa mandataire ngir mu dem teewee tirage au sort boobu waaye nag vérification de parrainage itam ñoom ñëpp danañ ca teew ngir rek ñu daal leen wax parrainage yi ndax baax naam baaxul loolu mooy nekk prochaine rattrape euh, bu euh, euh, candidature yi nga xam ne jot dañ ko déposé sans conseil constitutionnel salaamaaleykum. salaamaaleykum. oui Youssoufa Sonko. ñu ngi ziar baal yëkkati kàddu gi tuuti. Bàcc Ndaw la Bàcc Ndaw. ma ne yëkkatil tuuti waaye. maa ngi yuuxu ci kaw de. ah kon régie kon régie volume boog li ngay di wax. maa ngi yuuxu ci kaw kaw Bàcc Ndaw la. <laughs> merci merci <laughs> merci beaucoup. li ngi leen ziar bu baax. ñu ngi delloo bu baax a baax. liggéey bi. merci merci beaucoup. di jaale sunu mbokku patriote bi bokk magu Pastef. di ko mhm. mhm. ñu ngi koy jaale di ko jaale askanu Sénégal yëpp. Mhm. di wax euh, tirage bi moom li ci nekk dal na xel quoi pour l'instant. le maanaam leer na. waaw waaw lii moom wax dëgg fi àll leer na parce que mbir moom. <laughs> da koy teg ci penc mi quoi. waaw. ñëpp jàkkaarloo moom. Eh. moom bu fekkee lépp bu nii rek lépp tegu si yoon rek. ah waaw vraiment rek mooy am ko mm-hmm. parce que lii mooy yoon ko parce que média bi toog ñu la koy jox en direct nii. Mm-hmm. di la wax kii mooy jël peeke moo jël moo mujjee. Mm-hmm. ba nga xam ni lépp leer na te ku xool tirage bi xam ni euh, faraluñ kenn walla jéemuñ si lu lëndëm. loolu moom am na solo. man nag damaa gis ni Ousmane Sonko ñi nga xamante ni ñooy ñooy def parrainage u éli yi moom mooy premier euh, ñi def euh, euh, parrainage député yi Ousmane Sonko moo nekk premier donte quatrième la jëm mais ñii jël mais moom la ñuy njëkk a xool dossier am. déedéet. déedéet ah. déedéet. dama ne. waaw. Ousmane Sonko. waaw. moom parrainage député la am. waaw. te ñi ko jiitu amuñu parrainage député. waaw. kon dama ni moom parrainage député yi moom la ñu njëkk xool. déedéet. ah lu tax déedéet. déedéet voilà euh, merci pour la question parce que lii itam lu mat a leeral la. Euh, tirage bi nga xamante ne moom la ñuy soog a def hmm. nii. Mm-hmm. tirage bi mooy définir ku ci nekk ban waxtu la ñuy xool sa parrainage ndax baax na am baaxul amul député euh, moo la pare ne amul parrainage citoyen moo la parrainé. waaw maanaam tirage bi pour ñu xool kan la ñuy xool sa parrainage ak ban position ngay ñëwee. ok léegi nag pour leeral Ousmane Sonko bi nga xamante ne moom la ñu njëkk a woo. parce que Ousmane Sonko moo njëkk déposé candidature am ca conseil constitutionnel. waaw maanaam bi ñu de bi ñuy wax euh, bu ñuy def euh, appel bi. dañ ko def par ordre de dépôt maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk a déposé ñoom la ñu woo ngir ñu ñëw dugal seen i fi nga xam ne moo di euh, kii bi boîte bi. waaw donc loolu la ñu bari xaw a réeree mbir jàpp ne Ousmane Sonko non non Ousmane Sonko moom moo njëkk a déposé moo tax moom la ñu njëkk woo ngir mu ñëw dugal li nga xamante ni moo di turam ci urne bi et c'est ce qu'a fait maître Ciré Clédor Ly maintenant ci vérification parrainage bi Ousmane Sonko dañ ko tiré en quatrième position.